taalibe yëpp rawaat nañu dëkk ay kàddu yu mel ne yam daan yëkkati rek di xam le ne moom li yitteem mooy yéen ñëpp jàmm yéen ñëpp mucc yéen ñëpp ak wér yéen ñëpp ngërëmul sëriñ bi yooyu nag lépp lu mu yaakaar ne dana yombal yooya fuñ ca toll lam ca war a digle dana ko digle lam ci war a leeral dana ko leeral lam ci war a tere dana ko tere loolu nag buñ ko buñ koy wax liñ ci jublu mooy dëkkub sëriñ Touba bi ci di Touba ñëpp noo xam ne dëkk bi rek moo doon yittee sëriñ bi c'est ba sëriñ bi bind xasidaam googu di Matlabul Fawzayni ñu ci ko Toubaal Mahrousa kon lépp luy aar Touba lépp luy gën a sellal dëkkub Touba loola mooy li ko gënal ñu di ko defee di ko doxe di ko waxe tey nag mu woon fi jëwriñ li muy liggéey loo ci Touba ñu xoolee jataay bi danañ ci gis sous-préfet ndaam muy Serigne Mansour Diallo ñu xam ne mooy yilif sous-préfecture bi wër Touba yëpp nekkal fa borom réew ñu gis Sëñ Abdou Lahad Ka mii nga xam ne mooy maire Touba te moom itam mu de muy taalibe sëñ Touba buy liggéeyal sëñ Touba ci Touba ci ay ndigal ay kilifaam ñu di ko taxawaloo dëkk ba muy meeru dëkk bi gis nañ ci jataay bi ñoo xam ne ñoo sëriñ ñoo bokk liggéey boobu sëriñ Mamoor moom moom sëriñ Fàllu mi ngi nii sëriñ mi ngi nii sëriñ Fàllu Mbàkke mi ngi nii sëriñ Aliou bokk ak sëriñ Abdou Ka di liggéey ci meeri Touba la bokk loolu nag li ko waral moo di ngir kaaraangi dëkk ba ngir wérug yërëmu dëkk bi ngir seetlu dëkk bi daa tax bu yàgg lañ tàmbalee xalaat marché gerte bi ci gaar bu ndaw nu ñu ko jëlee barab bi mu nekk yóbbu ko fum mu xaj fu yaatu moo xam ne mooy gën ci ñiy liggéey ci liggéey ba waaye mooy gën ci ñii dëkk ceewet ga ak dëkk bi yëpp te gis nañ ne gouvernement bi jóg nañ ci àlli mbedd dëkk Sénégal gépp fu dara tege loo xam ne nekkul ci kër nekkul ci biiru marché ñu jëre ko te bu ñu fàttali ko Abdou Karim Fofana mi ñu dénk loolu ñëwoon na fi Touba ci ginnaaw lu toll ci ñetti weer ñeenti weer ci biir discours am boole woon na ca ne ñu xalaat ne bu ñu agsee Touba marché gerte bi danañ ko génn biir dëkk bi moom Abdou Karim waxoon na ko waaye laataa ma koy wax fekk na kilifa dëkk bi xalaat nañ ci ba am ay kilifa yu jotoon joxe ay terrain wax ne sëñ Ahmadul Mokhtar am na terrain bu mu joxe woon gannaaw bi ñoo xam ne sëñ Abdul Fattah am na terrain bu mu joxe woon ñooñu ba ñu joxe seen terrain yooyu lépp bëgg a defar Touba rek tax ñu joxe ko bëgg itam liggéey boobu ñu yóbbu ko fa yaatu ndax laat yóbbu daral ga ginnaaw ndindi yóbbu ko ginnaaw kër kàbb te mu nekkoon fii ci dëkk bi loolu moo tax gerte gi itam bu ñu ko war a yóbbu ci bitti jàpp naa ne ña ña fa nekk yóbbu ga du leen war a diis moo tax sëriñ Muntaxa ne nañ xam le ne moom joxe na ndigal ci marché gerte bi ñu génne ko ci bitti dëkk ba jox na ko ñii di saytu dëkk bi buñ ko fa yóbboo ña fi nekk kenn ku nekk ñu wutal la barab boo xam ne dana méngoog bi nga nekkoon ci biir dëkk bi nga nekk fa di fa wéyal di fa daan sa doole di fa dàq sa wërsëg di fa liggéeyal Sëriñ Tuubaa boobaa mooy gën ci ñoom mooy gën ci dëkk bi mooy gën ci ñi dëkkee dëkk bi ci wàllu wér-gu-yaram rawatina ndax nit ki lu muy def na ci jiital ak wér bala ñoo jaamu yàlla dañoo mën a wér bala ñoo mën a lekk mu jàll dañoo mën a wér kon luy tax wér a am loolu la suñ bëgg kon nag loolu moo tax sëñ bi bëgg ñu jële fa lépp ñu dem ndax camion yi tu daale woon nañ ko waaye camion yi marché bi moo leen fi andi bu fi marché bi nekkul kay camion yi duñ fa nekk ndax camion yi bu fi marché bi nekkul defuñu fa dara kon nañ yóbbu marché bi camion yi de décharge ji foofa jaaykat yi dem foofa yóbbu fa marché bi lépp leer boobaa nañ ci sëñ bi lim sell gi mu bëgg dëkk bi dina ci am rafet gi mu ci bëgg dina am wér gi mu bëgg dina am. mën a xam li nga xam ne